أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والجاه السلام عليكم ورحمة الله بوكي yi ñoo ngi يالا سون بروم بي سبحانه وتعالى di julli ci yonenteem bi nga xam ne yàlla moo njëkk a wax ci alxuraan ne moom day julli ci moom waaye yemu ci ndax dafa digal malaayika yi nga xam ne ñoo ko gën a jege ñuy julli ci moom euh, te biñ ca noppee digal jullit ñépp ngir ñuy julli ci moom yonent boobu di yonent bi nga xam ne mooy ki gën ci mbooleem ñi yàlla yónni Euh, di nuyu mbokk jullit yi ñuy topp yépp ci seen seen youtube bi di le grand secret en wolof di fas yéene dellusiwaat ak yéen ci beneen njëriñ ci njëriñ yi ñu baaxoo ànd ak yéen te di leen ko laabire tey ñu bëgg a ànd ak yéen ci njëriñ la kéemaane mbokk yi incha allah waaye laata ñuy jublu ci liggéey bi rek faw ñu sant mbokk yi nga xam ne ñoo abonné ci chaîne bi tey topp liggéey bi dinañ dinañu sant itam ñi nga xam ne ñooy partager vidéo yi te di ko yaatal ba yeneeni mbokk di ci mën a jot di ci mën a jariñu ñi nga xam ne nag yàlla dafa dogal abonné ci chaîne bi ñuy soog a seetaan vidéo yi ñoo ngi leen di ñaan ñu abonné ci seen bi comme ni ko yeneen mbokk yi defee mooy tax lépp lu ñu dugal rek ngeen mën a jot notification bi. Euh, kon incha allahu taala ñu jublu ci li ñu tax a jóg. képp koo xam ne. danga bëgg yàlla sun boroom subhanahu wa def la nga mel ni weer ci bëtu nit ñi leer leer lool say mbir leer nga bëgg itam képp ku la gis rekk sopp la bëgg la nga bëgg itam lépp looy dox bëgg suñ boroom defal la ci tawféex yitte joo am aajo joo am di ko doxi bëgg yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mu fajal la aaju jooje na ngeen jëfandikoo incha allahu taala lii ñu leen di bëgg a wax dellul ci alquraanul karim wala nga dem ca suuratul xijri aaya fukkeel ba ak juróom benn liggéey bi nag guddig àjjuma lañu koy def maanaam alxamis ci guddi lañ koy def moom lañ koy bind incha allahu taala wala ñu jàng ko ci waxtu woowu mënees na koo jëfandikoo ci anamuk bind mënees na koo jëfandikoo ci anamuk jàng te mel na ni jàng gi mooy gën a yomb ndax am na waxtu yuñ ko sàkkal incha allah kon alxames ci guddi te loolu mooy guddi ajuma incha allah ci ngay jàng ayatul quran yi day fekk nag nga duy sa potu ndox ba noppi teg ko ci sawet wet ngay eh, duy sa kaasu ndox wala sa potu ndox teg ko sa kaasu ndox potu ndox loo ci duy baax na aaya bu njëkk bi mooy wala xad ja'alna fi samaai burujan wa zayyannaha lil nazirin moom juróom-ñaari koy jàng waaye nag wa zayyannaha lil nazirin saa boo ci egsee dañ koy baamu moom itam juróom-ñaari yoon aaya bi mi ngi ci sooratul xijri ci fukkeelu aaya bi ak juróom-benn ñaareelu aaya bi mi ngi ci sooratul ahzab sooratul ahzab aaya ñeent fukk ak juróom-benneel ba wa daaiyan ilallaahi bi iznihi wa siraajan muniran moom nag juróom-ñaari yoon nga koy jàng juróom-ñaari yoon nga koy jàng juróom-ñaari yoon nga koy jàng su ko defee nag képp koo xamante ne ni bind na lenn ci commentaire yi am lu muy leerlu wala lu muy sàkku rek incha allah danañ ko ko yombalalal danañ danañ leen tontu yéen ñëpp ku ci am question boo bëgg a laaj jarul ngay woote téléphone waaye mën nga koo commentaire danañ la ko tontu leeral la ko ba mu gën leer incha allah ndax appel yi léeg-léeg mën nañu fekk fu ñu dul amee jot waaye lool leen ci commentaire rek dinañ leen ko tontu bu baax bu ko defee yeneen mbokk yi nga xamante ne ëmpale woon nañ ko ñu mën koo xam loolu tam na ngeen ñu ci jàppale incha allah. soo bindee ñaareelu soo jàngee ñaareelu aaya boobu nekk ci sóoratul ahzab moom juróom-ñaari yoon nga teg ci ñetteelu aaya bi nga xamante ne mi ngi ci sóoratu yusuf aaya ñeenteel ba is qaala yusufa li abihi ya abati inni raaytu ahada ashara kawkaban wa samsa wal xamara raaytum li saajidin soo noppee nga teg ci moom juróom-ñaari yoon lu ci ne juróom-ñaari yoon la soo noppee nga teg ci aaya bi nekk ci sóoratu nuux ci fukkeel ba ak juróom-benn moom tamit te mooy wa jaala alxamara fiihinna nuuran wa jaala samsa siraajan dalay def nga mel ni weeru badar leer leer lool ku gis bëgg la yàlla leeral say mbir aaju joo yàlla fajal la ko boo ba noppi nga teg allahu azizu téeméer allahu azizu ñaari tur yàlla yooyu lu ci ne téeméer yoon nga tufli ko ci ndox mi raay ci sa xar kanam raay ci say loxo lu ci des nga di ko li ci des nga di ko nga di ci naan raay ci say loxo sa xar kanam ak sa bopp masaa ci sa bopp daal li ci des nga di ko naan incha allah mu nekk lu am solo lool def nañ ko ak laabiire eh, mu ngi noonu kon képp koo xamante ne nag bëgg nga liggéey bi mu gën a barke ci yow inshallah allah ñu ngi lay ñaan nga bës zem nga am vidéo bi ci lañuy xamee ni lu ñuy def amal na leen njëriñ te ki ko def liggéey bi yàlla na gën a barke ci yow bu baax a baax a baax inshallah kon ñu jox leen dig daje rek ba ëllëg ci beneen vidéo